jàll léegi ci une l'observateur ak record ñu dem ci l'observateur li mu xëyee tey Apoulaye euh, xët bu njëkk bi l'observateur mi ngi nii allocution de fin d'année Macky Sall et les de 2022 conjoncture économique dette euh, et grands projets ñu ne les grandes lignes d'un discours bilan muy euh, li nga xam ne mooy kàddu yi président de la République jébbal askan wi 31 décembre mi ngi ci l'observateur l'observateur wax it ci gros nuage sur la continuité du service public ministre yeeg DG yeeg ñëpp ngi campagne te amuñu ci benn dogal à lire à la page 5 de l'observateur su ñëwee ci grand bal bi doon am fële ca Dakar Arena bu Youssou Ndour doon euh, tëgg ñu ne Youssou Ndour à jamais le premier mbirum euh, Miss Sénégal Amina Badiane mi ngi ciy wax page 6 et 7 bu l'Observateur ni mu dundee yëf yi ak plainte bi fu mu ci toll moom ak ak ay avocat lépp mi ngi ci biir euh, l'Observateur l'Obs dikk ci chambre criminelle étudiant bi ñuy tuumaal ay sàkku ay xale ñu ne comment le garçon de 20 ans a pâté victimes nu mu doon naxee nit ñi mën ngeen koo ci combat bi ñu doon waxtaanee sànq muy Balla Gaye 2 ak euh, Bombardier euh, Bombardier ginnaaw victoire am bi mu ne je savais euh, déjà que j'allais battre Balla Gaye c'est à lire à la page 12 ñu jeexale ak record li mu xëyee tey record mi ngi ni CAN 2021 malgré la pression de Watford Ismaïla Sarr dans la tanière ce lundi page 6 ñu ne il rencontrera son médecin traitant le 10 janvier maanaam lendemain début CAN bi lay doon Pape Gueye de terrain bu Lyon yi on travaille pour être prêt le 10 janvier à lire la page 6 première ligue Chelsea Liverpool 2-2 Sadio met fin à 9 matchs de disette 9 matchs yu mu toog dugalul Sadio jeexal na ko Mendy maintient les Blues à flot Sadio et Mendy ensemble vers Dakar euh, Pape Abdou Cissé défenseur des Lions ca page bu record lamb ji it ci page ak yeneen ñu dalal léegi ummi Samb ci météo évolution bi ci am wala sax ñu talaat leen ko léegi léegi lay doon. Oumy la Sambène egsi na Oumy ma nuyuwaat la. <laughs> ma fayaat la di leen nuyuwaat téléspectateur téléspectateur yi tamit maa ngi leen di nuyuwaat. bu baax ñu dem ci météo bi. météo bi dama koy tënk nag. bi mhm. yoon euh, naata ñu jàpp ni que euh, on a de la fraîcheur matinale et nocturne ba tey. Euh, température bi gën a sedd le matin ça sera à Kolda mooy obtenir le mini des minis comme le disait notre très cher tonton Bamar Diagne dinañ am 16 degrés à Kaffrine am 20 degrés pour Saint-Louis et puis la côte euh, ouest 22 degrés la ñu nar a am à Dakar dans l'après-midi nag température yi euh, dina euh, augmenter hein mhm. comme d'habitude 34 degrés on aura à Saint-Louis ça sera surtout au nord et puis dans le centre côté Kaffrine Tambacounda toujours pareil l'axe central les températures euh, restent quand même stationnaires mhm. dinañ am euh, quelques particules de poussière bu nar a jugee nag ca bët gànnaar euh, marée haute 9h23 et puis 21h44 marée basse ñu am ko 3h06 et 15h15 minutes jant bi moom fenk na ba pare à 7h 36 minutes coucher du soleil bi nag lañu nar am tey à 18h51. incha allah merci beaucoup tey nag <laughs> la ci wàllum météo. Euh, naata clin d'œil à tonton Bamar Diagne. c'est c'est vrai il a bercé notre enfance voilà c'est ça sur la RTS ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar suñu nijaay ji merci Oumy kon ba suba. incha allah jërëjëf allah bu soobee borom bi merci ñu bàyyi la nga dem ci collation bi. <laughs> Fatou Kiné Deme merci à demain. merci beaucoup soxna Naata ni nga waxee euh, dig ëllëg bu ci yàlla àndee di jaajëfal ñi ma bokkaloon plateau bi c'est toujours un plaisir di jaajëfal euh, téléspectateurs yi ñu bàyyi xel di ñu gunge boobu ba tey. merci Alaaji Daouda Mine ba altine incha allah. waaw ba altine incha allah rabbi. Hmm, soobee yàlla Marcel à demain. à demain incha allah et puis cher toi à mercredi. incha allah c'est ça tey ci guddi yaa ngi ci sport à la une. voilà c'est ça on va préparer la <laughs> c'est ça en route vers la euh, bu njëkk. bu matinal 2022 vous a beaucoup plu on l'espère bien en tout cas ñu ngi leen di ñaanal encore une fois atum naataange atum wér euh, surtout euh, santé ndax wér moom daanaka boo ko amee ba noppi rek lépp lu ci topp bénéfice la euh, ça a été un plaisir d'être avec vous depuis 6h30 minutes on vous donne rendez demain inchallah même heure ci matinale bi di leen ñaan ngeen des ak télévision Futur Média ñu yendu ak jàmm jërë ngeen jëf oo wax